sérigne di doomi sérigne maggal te fonka ci gën sunub sérigne moo di baayam léegi moonu yilif ñu xëy nu yal yaari àqam yëpp nuurey yam koo xam ne fam nañu aw say yan ko yokku jëlëf da yokku te te yokku farlu mbaate mu bon buurub aras la ko bàyyam dénk jàpp ko teg fi noon te gis nañi dëggal ñëpp seenu jëfiin gannaawu baaxul ku koy def sag njullit rafetul yow loo mënul wan ba ngay gis ban ba tey bu ko man saytaane rey nag murit raykat bi yal na ko rey te dëggalug murit ak xalam yu tax nu yewen da tax sunuy mbir yewen nun ñii du jàng lawal du jàng saane ka denc jur ba leen xaram sëriñ bi ñëpp la daayee waaye na dina dem ñu neeti yeeti ba yee saytaane dellu nu man ñàkk ak joxe xolaku juriyat yi waraloon mboolem sunuy mbir yéwén Touba te ci ñun di sant faw waka dem Touba ak Touba nun ñu ëpp yàlla na koy def ndax ñu boole nu tun sëriñ bi yàlla dundal am ngërëm te jubóor faw ak sëriñ doomam ji nekk fi nun yow Moustapha maa ngi nii lew naa la jënd nga ma yaa fab lu ëpp sama njëg ma sang nga ma yow Moustapha maa ngi nii lew naa la jënd nga ma yaa fab lu ëpp sama njëg ma sang nga ma diiru li ñuy sax naa man ci say loxo ba te sax ci yow sax ci say wax faw jàpp nga ma kay rëcc koo kadu man kay rëcc koo kadu man. kay deeti génn ci yow mi it du ma yaa yewu yaa mën a yeew as gor ba dootu fa jóg teraanga ngay yeewe as gor binti ma yaa fam damal penku ak waasoo joxuma ma jël penkoo ki ngi may ñee nga te teg nga ma yaa fam damal penku ak waasoo joxuma ma jël penkoo ki ngi may ñee nga topp nga ma yaa tedd yaa ma teral yaa mucc yaa ma musal yaa jàpp yaa ma jafal jaaraama sedd nga ma yëga yëwoo ma sa ay gi yàlla boo gisu ay ci ay gi na nga yokk bal falaale nga ma manan nga ma jébbalus ndaw man su gën suñu xam te jébbaloo ma sa tub nga ma xañoo wërsëg xañoo ma sax xañoo ma njariñ xañoo ma barke xañoo maw nit doyanti nga ma man ne ku doy rek laa wan yaa ma ron jëli ma nag ba ma jag yeesal ma faale nga ma sëriñ bi ak yàlla ak yoneen ba ñii dañu laa yaatal nga yaatal ma yokkul faw yokku nga ma yow war nga wàcc fi man mii wàcce barke man te wàcce nga ndaw fi man soo tànn faale nga ma yow a boo amee as la képp ku am ngor ak war ma war caajee ma def lu mu man yow Moustapha boo amee as la képp ku am ngor ak war ma war caajee ma def lu man sabaa ya tax kooku gis am ñuy bay ak bay ak ñuy wala du ñu wala sa jiitu na ma man sabaa ya sànni dërëm penkoo gisoo wu di for mu dël bu di wéy ëskay sabaa ya fi gën sabaa ya yaa gën defoo ko na sax sawem wuley wañu daamus loo gadaw lala yem sabaa gën démb yaa gën defoo ko na sax sayam wuley wañu daamus loo gadaw lala yem dëral na yal na nu yàlla yi dëral ak ngërëmam ak ba nga yegg ak fépp fu gën dëral nu yal na la yàlla yi dëral ak ngërëmam ba nga yegg ak fépp fu nit ñaa ngi def xaaji xaaj ak pàcci pàcci ci yow waaye tewee bañ a ànd ak kenn ak sa bakkan yàllaa ngi ànd ak ba ak kalajul yii atti mbër ku ñu àndal faw nga lu yaa raw nu bon mbàkke say mbir jub na say pexe jub say soppe bég nañu say bañ sew ba tol ne karam tey jii jàpp ci yow mii faw ñoo nga bu yiw ñi ngëp ci kenn ku dul yow léegi ñoo nga fen ba yàlla jëm fa la dëgg barke jëm te fi yow la jëm fi yow la yabal mboolem ñamuy xalatin kuy wax lu bon tabaxal kuy def lu bon tabaxal waaye dëgg yàlla na nga sut mbër yëpp tuur ak fan sama kadi yaa ngi nii jàppal te xam ni sama xol fas na la waaye tey jii nag waxay li ma man sama kadi yaa ngi nii jàppal te xam ni sama xol fas na la waaye tey jii nag waxay li ma man sëriñ bi kenn la maasa mas la am te du am moo jiitu sang ya dee fa dégg ak yenu gis sëriñ bi kenn la maasam mës la am te du am moo jiitu sang ya deefa dégg ak yenu gis mboolem sëriñ bu ko def maasit na sàkk ku mel ni Ibra Faal ak Seex Ibra Faati nu gis sëriñ si yéena ngi nii te ngeen xëy daje bis te dikk def nii nu def jébbal ko seeni kurus day yokku diine di ful wërsëg di guddalu fan di fekk lor ak tartar ak kër kër ku wet dina mos ku mos moseeti ko ngir suukar la waaju ko mos moseeti faw mosal bul faale yow ku la xas ko fas ni bamba sa maasum baaye dëgg jógal ànd sa jëm mu te dem lambar na del si nu gis sëriñ ba jar xëy ni mees jug-jug fa àll di yi di laaji kay wut ba am téeméeri at mi ngi nii jariñ la jar la xeesu i raf lee te xiifa kamar ngir bëgg koo am ba dee foofu jot la yit ngi nii noo boole nag bii sëriñ ak lii njariñ ci lu bir te kenn réeru ci ay bokkam lu mag jëngi nii sëriñ bi nun yaanu rokkas yaanu roofatu yiw yaa teeno af yaanu te xëy daanu yaa gën a baax doo fecci wëllëre doo bés kenn doo dige war kudul yow ak man a yam yow rek rek fi baax kudul yow ak man a yam day gën di def lu rafet jaloote ci bon bonam yow rek ka ci lu baax koo xas ni jas jëme kaw kaw rek lay xala du daanu muktadi jaajëf sant naa la bu baax sëriñ bi sarax nu ndoole ndax nu defal la lu rëy lii nu fas am doole rek kay waral mu bés sëriñ bi sarax nu ndoole ndax nu defal la lu rëy lii nu fas am doole rek tey waral mu fés te yàlla defar gépp defar sunu mbir ba duutu yàlla yal na defar gépp defar sunu mbir ba duutu yàqu te may nu doy lu faw ku yiw ku yàlla wallu nga fàtte coono yàlla nu may nun ñëpp wallu bu guy tax nu jot ñanu raw ku yàlla wallu nu raw subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين